sët bi borom bi dafal mu jiite taawa ki caat kookaa di doomi sëriñ basiiru tey sëtu sëtu daam ka nu bàyyi doon nu maam lu dëng mooy jubalaat moo taaru dënnu na taaru biir ca maam delluwaat jël mbubbu taaru bi téem ca baay ba dal solaat xanaa ki may wax bu doon aw cax la kon càqi ngeen bu doonu lépp fii di ngeen ko gaayi nan xalamaat ka seyxi bamba junjoon ca ay walil muntaqa wajaatu ñëw na ndakaaru ngir dëggal delluwaat ka seexi bàmba ju njoon ca way walil muntaqa wajatu ñëw na Ndakaaru ngir dëggal jëlal ma way wate daal di koy xadat te xalam mu jox la at ma mu ndakaaru ngir yee salaat jëlal ma way wate daal jinaani ku te jàpp julli am nga yool am xasanaat jumaa ja moo di masaalikul jinaani ku dem te jàpp fa julli fa am nga te am asanaat gannaaw masaalik la daldi woote tabax ab jàngu ngir université bi jugaat lil Mustafa li banaal xudduus madrasatan loolaay la Seex Muntaqa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil Mustafa li banal xuddus madrasatan loolaay la Seex Muntaqa jëmmal ni ngeen takkuwaat lil Mustafa li banal xuddus madrasatan loolaay la Seex Muntaxa jëmmal ni ngeen takkuwaat mooy taalu xam-xam ba Bamba taal te mus la fay boobee tey ku fi jaar saw say nga jël jëfalaat mooy taalu xam-xam fay boobee ba tey ku fi nga jël jëfalaat sayam wa Seex Muntaxa daaray amul ni mel xambal na taalu bi yëpp seeni taal taaliwaat jël kàddu yàlla gi wax ni nan ko yëkkati kat te bañ laalati suuf ne ñëpp yëkkati waat baytu zakaata ngi nii ko aajo azaka bum tiit sëriñ bi amal na kër gu ñeel azakaat yaakaar way ñàkk yaa ngi dimbala ko ngi ku xiif ba yegsi ci moom mu daldi jël yafalaat walaayi moom fa nu sédde mag ña cëri yanu am falan ko sédde cëram mu ñëw di sédde lawaat seexul xadiima di maam ja sëriñ basiiru di baay ba moo waral ni mu mel si di dafay rogalaat Pastef bu doon géej la moo ko fey bu doon dexitam Seex Muntaxaay ki ko xuus pa jàll dal di weat ak dogu tam bu ni woon am ndox la mooy ki ko naan bu doon lu nuy wuti tam du mooy ki koy wuti waat man xaadimul muslimiina baala way la defal ko koppi ku di jullit di déglu sabaat Cheikh Muntaxa na yàlla buur bi guddal saw fan la wér banaal yi yegg nga naal yeneeni naal naali waat na yàlla buur bi guddal sa fan la wér banaal yi yegg nga naal yeneeni naal naali waat ci barke Seexil Xadiimi jaamu yàlla baraw ñi jiitu woon ak ñi ñëw gannaaw bi ak ñi ñëwaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gën nit ku ñuul ak ku ka yàlla may darajaat te yàlla julli te sëlmalaat te sang ba gën ku ñuul ak ku ka yàlla may darajaat